اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant borom bi bu baax a baax jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom ak Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké borom guddi gi daanaka dañ ko séddoo ndax suñu dafa ne yonent bi dafa ne lay mel ne cëpp loolee di ab jagle ci moom boo xam ne bii moom la ko suñu borom tànnal ci bés bi ñu toog fii ci biir tànt bi ak suñu jàmbaar ji suñu wasila Cheikh Juli Abdul Fatah Mbacké nga xam ne bés bii nga xam ne moom lay màggal du tey la ko tàmbali tàmbali na ko bu yàgg-yàgg mën naa ne ba mu ko njëkk tàmbali ñaari xar ya nga xam ne moom la ñu tëral ñaari xar yooyu mbooloo bu ko lekk si nekk nga xam ne mbirum sëñ bi moom tànki kanam la am amul tànki ginnaaw waaye buñ koy wax ci ku dëggal moo tax ñuy wax ci ku dëggal moo tax ñuy wax murid bu dëggal moom nag dëggoom bëggam Cheikh di ko liggéeyal moo tax tey mu egsi fii mu egsi ak mbooloo mi ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci ginnaawam nag ñu am ci ab cant bu yaatoo yaatu tàmbali cant gi ci jëmmum ju tedd ci ndax teg gum ñu teg ci yoonu mbaax teg gum ñu teg ci yoonu liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul waaye teg gum ñu teg ci ñoom ñoŋal li nga xam ne moo di waaru Cheikh Mouhamadou Fadal Kazu Rajab Serigne Fallou ko ñu di ci dox ay at tàmbale ko ca kër maamam ju tedd ja maam Thierno Diouf Lambaye kër waajuram mu tedd bi sëñ Abdoul Fattah yàlla suñu doom yàggal ko fi te ba egg si tey fii ñu ne ko Mbàkke mën ngaa jàll ba ndindi ndindi ndindi mu sëñ Fall nga xam ne mooy sa maam ba mu am nga toog fa def fa di nga bi boo ko weesoo ba tey ñu ànd moom ba tey fii ñu egg si nii yàlla nañ ko ko yàgg di ko taxaw barke Cheikh Mahmoud Fadal Mbàkke sant nag mbooleem daayira yi nga xam ne teew nañ ndax fédération Saadixiina wa Saadixaat yi sëñ jëli samp ko mu lëkkale mbooleem daayira yi nga xam ne moom la am. sos ko dañuy dëgg saa su ne saa yu sosee daayira nee na bésub maamam bi it moo tax muy sos daayira bare na kuy sos daayira ngir leneen ak leneen ak leneen waaye moom nee na daf ñu leeral nañu bésub Kazu Rajab moo tax muy sos daayira ba tax na daayira yëpp danañuy daje su Kazu Rajab jotee àndandoo màggal fa ak moom mu di guddi màgg guddi gu tedd gu bari ay yërmande guddi goo xam ne dañ ci teewal moom sëñ bi yéene ñu lépp loo xam ne am na ko ci lu baax rek mu bokk ak mbokku taalibe tax na saa su ne mu yëngutu ca parcelle journée ya nga xam ne mu culturel yu sëñ Fallou yam fa daan def ba mu xajatu fa ñu yóbbu ko ca foire ba loolee lépp di wane Cheikh Mamadou Fadel rek te nëbb boppam waaye nëbb nëbb nëbb yàgg nëbb nëbb feeñ rek ndax mënta mënta nëbb nëbb nëbb ba du feeñ ndax liggéey bee toll noonu liggéey bee rafetal noonu ñu leen di wax ne ñun ñii nga xam ne ñun na njabootee njabootee tey ànd ak ñun ca liggéey boobu day yu mu sos bari nañu lool macha allahu te day gën di yow ndax dëgg gi mu ko sosee ak gi mu ko laytaayoo moo tax nee na da ko daayiraam yëpp da leen a sos ngir liggéeyal Cheikh Mamadou Fadel te wane liggéeyu Cheikh Mamadou Fadel di ko tuddee ay mbedd ku ne dégg ko di ko tuddee ay angle ku ne dégg na ko di ko di ko wooteel ay ay ay cant fii ba bitim réew mu di ko wooteel ay cant lu jekk lu ne rek mu ne sëñ Fallou ko jago lu jekk lu ne rek mu ne sëñ Fallou ko jago ba pare suñu sëñ Fallou it di ko ca wan it ay mbir yu leer nañ ñu ñu koy seede tey fii te di ko seede saa su ne xam nga première ne li ñuy wax la crème li ñuy wax l'excellence à chaque fois sëñ bi koy am angle sëñ Fallou bële ku ne xam na ne gannaaw ba mu ko sampee la ñuy tàmbali dégg angle angle angle angle kon mooy première ki ko fa samp ba pare awale ko ci citoyenneté ak légalité bu wér ba mu koy samp daf ko utal ay kayit yu leer kayit yooyu pour mën a nekk citoyen bu ma modèle ci biir dëkk bi moo tax ndax boo nekkee ci dëkk da jiital boo talu jiitu da ngay da ngay joxe exemple exemple moom la joxe foofu ànd koog maire ya nga xam ne ñoo fa nekk autorité locale ak autorité étatique yi ba taxawal loolee tey dama leen di wax li mu jur nga xam ne moom visionnaire la moo di baxa ku nga xam ne boo demee Dakar fa mu ne tey BRT yi mu fay jaar waaye bañ ko fa war a jaarale dañ ko wooy moom moom sëñ bi xamal ka ne ko lii ñoo ngi koy bëgg def ndax am na ay tuwa yu fi war a jaar te dañu war a teggi angle bi kon sa ndigal il faut mu jib si balaa ñu koy tegg mu xamal leen ne mën ngeen koo tegg waaye xanaa di ngeen ko fa defaat ñu ne ko ci lu wér dañ ko fay defaat ci ni ngi la neexee noonu lañ ko toll kon nga xam ne loolu aw ba mu awoon ci yoon rek moo ko xamee te noonu la awee ñun ci lépp na ku ci dem la teg ci yoon ba nga xam ne bii da nga da mën a teguwaat ci yoon ndax ci dëgg rek lay àndee ak ñun kon di ñoo ngi sant ci tur fédération yi tey tey daal am xel mu dal mooy xel mu gën a dalati ci jëmmam ji nga xam ne moom la moom moo fi ne te di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di sant mbokk taalibe yi fi daje yëpp mboolem daayira yeeg ak soppe yi ndax sëñ Fallou moom ñëpp ko bokk sëñ bi créé naa ay daayira waaye mën naa ne soppe yi sax ñoo ëpp daanaka ay ay taalibeem ñoo ngi fi waaye soppe yi ñoo ëpp ndax sëñ Fallou ñëpp ko bokk te ñëpp ko bëgg waaye bëgg sëñ Fallou na ko na ko na ko nañ ko sëñ Abdou woon nee na waa ji dikk rek di wax ne damaa bëgg Sëñ Fall damaa bëgg Sëñ Fall damaa bëgg Sëñ Fall di ko wax Sëñ Fall rek Sëñ Fall ne ko ah mooy bëgg sa bopp rek waaw ah, kon nga xam ne ndax dañuy njariñ kese kese googu am amul benn lool kon boog nañu sax ci liggéey bi maa ngi koy soññaat sama mbokk taalibe yi foofu lay daanele te di leen wax ne jotaayu tey bi sëñ bi ni mu ko tënkee mooy ñu def cérémonie officielle bi tax ñu teel koo def nag dañoo xewali ak bernde yi dañ fee demagul bu ñu ko defee ba pare ñu dem ci bernde yi bu ko defee bu ñu fa jógee ñu ñëw eggali suñu programme mu jëm faje te ñuy ku it ne fajar gi moom la Cheikh Mouhamed Fadel wàccoon ci kaw suuf fajar googu fa la secret yu bari ne bu ko defee ñun ñëpp ñu maase dellu si waat ci baas bi te fekkee fajar googu bokk ñaanandoo ñun ñëpp suñu ñaan nag ñu jiital si fekkee ko déwén ak sëñ Jili Abdou Fatah Mbacke yàgg fi loolu te ànd ak wér Mbacke kon dañ lay bàyyi kàddu gi benn kàddu rek lay doon waxtaan gi nga xam ne bëgg nga ko waxtaan ak ñun bu ko defee incha allah Mbacke ñu déglu la te taataanaat tey ñaanaat nga yàgg fi Mbacke nga yàgg fi Mbacke nga yàgg fi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min mbokki taalibe yëpp euh, soppee Cheikh Amadou Fadal yëpp di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ tey ci bisu Cheikh Amadou Fadal fii ci daara ji góor ak jigéen mag ndaw di leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal di am mbégte lool mboolem boo xam ne tey teew nga ci bis bu tedd bi nga xam ne moom rek la ñu am muy bisu Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Fadal nag ñu ma koy waxe rek la ko waykat ba waxoon rek mooy man nga sa kanam man nga sa gannaaw kon nag kooku képp koo xam ne yaa ngi sonn ngir moom wala yaa ngi jëf ngir moom sa xel war naa dal lool ndax lu ko waay sonnal mu fay la lu lu ko waay jëfal it mu fay la lu kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy sonnal wala yaa ngi koy jëfal da nga xam ne change la bu mag ndax bëgg koo tax jëfal ko bëgg koo sonnal it taxaw nga sonnal ko kon ku ko sonnal wala nga jëfal ko rek war ngaa sant bu baax sëñ moomu faral cër la boo xam ne suñu moo ko ko defal ak cër la boo xam te ni sëñ Tuubaa Xaadimu Muxtaar koo liggéeyee koo liggéeyal ba mu ba mu fay ko kon nag képp koo xam ne li wax def nga ko na nga sant bu baax te xam ne suñu falo mi ku ko lebal ker du fay laaj guddi kon nag sant nañu li wax ne jaage ngir guddi jeex ndax xam nañ ne seen alal def ngeen ko ci bis bii seenu jot def ngeen ko ci bis bi seen lépp def ngeen ko ci bis bi Cheikh Mamadou Fall kon nag te xam nañ moom rek tax ngeen def ko xam nañ ne moom rek moo tax ngeen daje fii nag yàlla na leen fay yàlla na leen fay ngeen gi fay bala ñu ñu jàng kenn ku nekk ci ñun benn ak fukki lexlaas ak benn ñu ñaaral ko suñu mbokki taalibe yi nga xamante ne bii daawu footere nekk ñu fi ak suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoom ñu doon ànd liggéey bi ba ñu sose liggéey bi tey bi nga xam ne bàyyi ko ñu jigéen nañu jàng te teylu ko te yéene nañu yool bi door a jëm ci waxtaan yi kon bismillah yi yëkkatiwaat samay kàddu ni ma ko baax daan nekkatoo ci waxtu yi muy kàddu yoo xam ne kàddu la rek ak kàddu yi soññee soññee ji rek mooy li tàmbali ba ci yem ak taalibe rek ndax mooy lépp ku ko am am nga lépp ku ko ñàkkee ñàkk nga lépp taalibe nag dana baax xam ko dana baax ci gën koo xam képp koo xam ne ak taalibe la gën a ràññee lan mooy ak taalibe bu nag mooy nday murit dañu wax ne al mu'min al muslim laysa mu'min walakin al al muslim maanaam képp koo xam ne aji gëm nga bi ab jullit nga waaye nekkul nag murid da nga koy doon waaye ak taalibi nag mooy pratique mooy lislaam boo ci duggee rek ab jullit waaye pour al moomi la moom da ngay gëm lislaam door nag ma jëm ci yàlla jébbal sa bopp waaye nag lan mooy pratique bi mooy ak taalibi taarif boobu nag moo jara jàng ci waxtu bu nekk ku ci nekk ci ñun war na cee am bindu bu bees ndax sunu waa ji Cheikh Maodo Fadal ku ne ko na ko damaa ñëw ngir jàng si kon loolu ab joxañ la xam wax na it ne ak taarif bi Cheikh Ibra Fall laa ci waaye nag lan mooy ak taarif kon na ngeen ñu gën a soññee ci li xam tuuti ak taalibe rek ñu leen ko ngir sunu jamono jii fii nga xam ne fi la toll ak yëngu-yëngu jamono ak yëngu-yëngu adduna ak yëngu-yëngu ci réew bi te sëriñ bi de taalibe la am am murit nag moom ngay doon doon doon taalibe waaye nag xam leen ne sëñ bi amul am murit waaye ab taalibe am ndax muridulaay mooy tudd kuy ab julli rek ak muridulaay waa taalib mooy topp topp gi nag mooy lan mooy topp sëñ bi Tuuba topp ay ndigalam moytu ni ko ay tereem dàkk ay bëgg-bëggam di daw ay bañ-bañam te suñ jamono bi ku ne xam ne fi mu nii dafa toll ci ñu war a di soññee ci ak taalibe lan mooy ak taalibe Cheikh Mamadou Faaral ñu masaa yi ci moom jëblu daf daan wax naan boo ne ko jëbbal naa la sa mbokki àdduna daf daan wax naan wax la ko de ma dégg soo ko jëfee ma gis nit ñi ñëpp li ñu tënk loolu mooy ñun ñëpp kon ku ci nekk ci ñun sukk nga sa këla Serigne Touba boole ak laaj te doo kenn muy Serigne Touba xaay na ndax mooy direction générale kon kenn ku nekk ci ñun loola day baax lool foo toll nga di ko sàmm ci fànn yëpp di ko sàmm. ci sa jëf yi ku la gis xam ne kii alali Serigne Touba la ci comportement di ko sàmm ci jëf foo jëfee rek ñu xam ne kii la taalibe bu Serigne di ko sàmm ci wax ku wax xam ne taalibe bu Serigne Touba la ab taalibe day tënk boppam ci yooyu ndax képp koo xam ne taalibe bu Serigne Touba la rek moomatoo sa bopp Serigne Touba la moom ndax nit ki ci àdduna amul ci lu dul boppam. boppam bii nag bi nga xam ne jël nga ko jox ko Serigne Touba amutoo sa bopp dara kon Serigne Touba kenn ku nekk ñun da nga xam ne ba nga ko joxee sa bopp amoo sa bopp dara ndax yoonu murid li ko sos jébbalu bi mu amee képp ku ma saa dem jox Serigne Touba sa bopp jox ko ko ba mu jeex takk bàyyi ko sa bopp ba mu jeex takk mu di la digal di la tere benn mu téye la fa ba mu sopp benn bi nga jox ko ko mu ñaanal la nga dem jëbal naa sa moom àdduna ak loolu digal nañ xam ne lu yomb la ci ci ci wax waaye lu yomb jëfe la kenn ku nekk ci ñun nag tànk yi jëfewu ko rek taal bàyyi xel bu baax ci tënk suñu ci ci ci sëriñ bi ko ci bu baax bañ ci rax dara fexe am benn bëgg-bëgg rek ab murit du am ñaari bëgg-bëgg benn bëggul rek lay am te benn bëgg boobu du lan lu bëgg Serigne Touba bëgg li Serigne Touba bëgg kon ni ngeen xam ne ak murit ak taalibe bu jafee jafee jafee jafee jafe la alxuraan dafa wax ne bali lisaanu ala nafsi basiratu kenn ku nekk xam nga sa bopp Sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafa damay wax ne kenn du ci dugganti duggal ba mu jeex wala nga bañ a dugg ndax duggantu li alxuraan di wax mooy wax musabzabina bayna saalika laa ilaa haa'ulaa'i wala ilaa haa'ulaa'i nekk ci diggante bi rek doob murit te du doob te doob murit nekk ci diggante bi rek bu la waxee nga ne taalibe ndax loolu lu koy firndeel mooy nga ne taalibe laa wala am murid laa ba pare di jëf-jëf nga xam ne du jëfi taalibe wala di jëf te loolu kenn ku nekk su ko doxee rek su moytu day lax bopp da Sëñ Tuubaa di lim ñu di jëpp ab taalibe la wax lim ñu di jëkk murid saadiq la wax ma njëkk ma indi ci benn abiyaat bi nga xam ne bari na ñi ko gën a di suy wax muy tuubaale xabib tubaal xabbi muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbi aw xaja daf tënk loole moo tax kenn ku nekk ci ñun jàmbar boppam bu baax léeg xool nga xam ndax est-ce que man murid laa est-ce que man taalibu Sëriñ Tuubaa nekk na koy jàmbar seen bopp ndax it lay tax lislaam lay tax nga jëriñ du nekk na ab jullit ngay doon waaye lay tax nga jëriñ ci mooy gëm mooy tax nga jëriñ mooy al muslim du jëriñu ci lislaam waaye al mu'min mooy jëriñ ci lislaam al muridu du jëriñ ci yoonu sëñ Tuubaa waaye taalibi mooy doon jëriñ ci yoonu sëñ Tuubaa kon na ngeen tënk seen bopp ci na na ngeen ko dëggal bopp ndax tënk sa bopp mooy bi nga jëlee sa bopp jox sëñ Tuubaa rek nga tënk sa bopp da ngaa war di jéem a dàkk bëgg-bëgg sëriñ bi foo toll da ngaa war di jéem a bëgg-bëgg sëriñ bi foo toll dangaa war di moytunu bañ bañ sëriñ bi del del xaar bu xaar sax sëñ bi naa la lii laa bëgg nga doon ko def del bàkk bëgg-bëggam del moytu bu xaar sëñ bi naa la lii laa bañ nga doon ko moytu del jéem a bàkk bañ bañ sëñ bi nga koy moytu ndax ak murit yombul kon am murit warul am benn bëgg-bëgg ci àdduna li ma ko xoolee mooy mooy bëggu sëriñ Tuubaa di tàmbale ci sëriñ yem ci sëriñ bi koo dégg mu naan am murit laa waaye booba la génn ci murit ab taalibe laa waaye Xaadimal Muxtaar li nga xam ne mooy Sëriñ Tuubaa tamate ko sëkk ci fan yëpp dafa mas a wax ne man sama kilifa de li ma doon doxee ak ñoom mooy dama leen di jox sama bopp bàyyi leen ak seen bopp dama leen jox sama bopp ba noppi bàyyi leen seen bopp loolu ba mu koy wax ab ab la wala ab tënk la kon ñun murid yi nañu gën a xamaat suñu bopp nañu gën a góorgóorlu ci ràññee na nañu gën a góorgóorlu ci ci ay doxalin ak ci ay xalaat ndax xam nga li ñuy wax naan ne murit dafa mel ni war a mel ni am néew kenn du ne ko du ne fii lañ may jëmale wala nii lañ may raxase déedéet day bàyyi loolu bañ ko waxee jeex na doone taal ba noppi lu sëriñ bi wax rek nga bëgg cee am xalaat loolu du am murit moo tax murit yombul sëñ Tuubaa Xaadimu Muxtaar dafa wax ne murit yi dëgg day ñooy sax ñooy taxawaayu saxaabatu rasul mooy ñoom dañu jëloon seen lépp jox ko yonente bi sallallahu lu yonente xalaat bu ko wax bu sax ña nga ca lu bañ wax lu nekk ña nga ca sëñ ko dara kon nañu gën a bàyyi xel ci taalibe rawatina ci sunu jamono jii ñu toll nii ndax xam ngeen bu baax phénomène yi nga xam ne am na nañu gën a xam bu baax ci phénomène bii nga xam ne ni tey moo xew ci suñu jamono bi ci réseaux sociaux yi ci yéen ñëpp xam ngeen ñëppay dugg ci réseaux sociaux yi ci kàddu yi nga xam ne ñu koy dégg ci lu jëm ci Serigne ci gis li ñuy bind ci ci écrit ci ay commentaire ci Serigne Touba xam nga loolu damay wax ne loolu warul jaaxal kenn ndax yonent bi sallallahu alayhi dañ ko daan romb nii mu toog nii ci keppaaram ñu romb ko saa yoo wala ñu romb nag romb ko kat di ko ñaanal yàlla la yàlla rëdd sàmm aleykum loolu lañ ko daan wax mel na ku koy nuyu du ko ca xam nga yàlla ne ci yow ñoom yéefal a garaaw bi def def nañu ko xam ngeen lu dégg moom mooy wutaakoonu yonent bi Rasulullaahi laal na yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam faaw mu laal wax bi ñaaw ji ngeen di dégg nii ci réseaux sociaux yi mooy door a xew waaye lu yàgg di am na waxuma la sax wax waaye def sax ñu yàgg dama leen jox benn misaal la ñu gën a doy waar gis nga Sëriñ Tuubaa fii ci tundu Bawol bii di ay mbokki boppam bi mu daan dem bi muy dem ci géej dajaloo nan di wàcce ay kaamil ngir ñaan yàlla bu mu dellusi waat waaw ndax sonoon nañu fàtt nañu yàlla bugg ñëwaat wax yàlla na yem foofu te tey ñooñee tey ñi ngi dund ci ab baat ci barkeet loolu ko gën a doy waar Cheikh Mouhamadou Fadal sunu sëriñ sunu yaakaar nit ñëw na ba jàkkaarloo ba jël setal jël setal na da koy tiire kooku ci murid gi la bokk de du jàkkaarloo moom téye setal bi loxo bi di rax di rax di rax def ba daan suñ fal ne bu ko kenn laal yóbbu leen ko ndànk ba dellu ko te bu ko kenn yëg lii mu def suturaal kon loolu lu ko gën a doy te booba ñu ci biir dëkk bi lañ dëkk ñoom kon adduna lu ne xew na lu ne lu ne mën naa am waaye nag ñun suñu warteef mooy kenn ku nekk ci ñun na nga war a taxaw ci yoon yoon yoon sëñ Tuubaa yi taxawaayu saxaabatu rasulullah ndax saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaa dem xare yi jihaad ñoo daan jiitu ànd ak moom yàkkamti ko sawar ñenn ñi seen i bakkan di fa des ñenn ñi di ñibbi waaye ku ne xam na ne li léegi sunu sunu borom bi ak lim leen wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ mooy mooy mooy mbënd li ma ko foofu mooy mu ne na xam na moo fay Sëriñ Tuubaa moo fa représenté Sëriñ Tuubaa kenn wartu wax ci Sëriñ Tuubaa lu mu wartu wax lu mu seetaan waxuma laa di def ndax adduna bii kan ku nekk ci ñun war nga man ngay débrouiller nooy lijjantee nooy dundee waaye ëllëgee nga xam ne ñun ñëpp kenn yaakaaru sax dara ku dul Sëriñ Tuubaa lañ fa yaakaar yaa yaakaar ki nga xam si nga xam ne sa adduna foofu moom nga yaakaar waroo loolu kenn di ko xooyee waroo loolu kenn bi ci di nu doxe ci war doxe wala mu ciy defe lu ci war defe nga nga koy seetaat ndax xam ngeen ne nañ ci jamono boo xam ne tey jii yu bare bari yéen a ngi koy gis yu bare bari yéen a koy dégg ba ci xew bii nga xam ne moo fi xewoon Tuubaa ci barkaati dem muy lu ñaaw muy lu ñaaw xam nga ñun nañ xam ne sunu àdduna ak sunu ëllëg Serigne Touba rek lañ ko jox yaakaaruñu kenn ku dul Serigne Touba Serigne Touba Xaadimal Muxtaar dafa mas a wax dafa mas a julli julli tabaski bi euh, mu sëlmalee xutba bu gàtt la wax daa wax ne asalaamaaleykum maa ngi leen digal képp koo xam ne am nay teggit na ko téye bu dëgër ku ko ñàkkit na ko wuti wasalaamaaleykum léegi teggin yooyu nag li muy jàngale mooy lépp lépp lépp a ngi ci biir sama làmmiñ da nga ko war a yor da nga ko war a yàq sa jëmm da ko war a yàq ndax misa euh, melokaanu murid sadiq luñ ko gën a xamee mooy ab yàq murid sadiq luñ koy ràññee mooy ay teggin waaye dama leen di laaj ki nga xam ne fa gën a jafe lañ ko dénkee suñu bopp muy àllaaxira kon xam kenn du bëgg Serigne Touba di bëgg leneen kenn du yaakaar Serigne Touba di yaakaar keneen du nguur du opposition kenn seen yaakaar kenn ku dul moom yaakaar gis nga li ngeen mu tas. kon nañu fexee tënk suñu bopp nga xam ne suñu suñu alal lay dund tegul ko ci loxoy kenn ku dul Serigne Touba kon sama mbokk taalibe yi ni ngeen bàyyi xel loolu wala fi jaay dafa wax ne wax ju àgg ab dafa maa ngi leen di te li muy dund ngeen xam bu baax ci ma leen di wax ànd leen ak dal jamono ji jaxasoo na réew mi jaxasoo na te jaxasoo bi muy jaxasoo xam nga lan moo leen ciy génnee. doon ab taalibe xam nga lan moo leen ciy musala am ay teggin nga xam ne kenn ku nekk ci yéen sa amaniiru adduna nekku ci loxo politicien ci say loxo yow la nekk kenn ku ci nekk nit bu gëm boppam waaye day xam boppam kenn ku nekk xamal sa bopp am sa njabi bopp góorgóorlu li ci des nga bàyyi ko suñu borom su mooy dafa wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa amul kenn kuy dox suuf man maa lay maa lay ki lay wërsëgal kon na ngeen góorgóorlu te seen xel yi génne leen ko ci politique saa yi ñépp nag ñëpp ci yem ndax ñoom ñëpp yem ñëpp yem su ne nii daal kenn rek ci ko war a tënk jox ko kenn rek lañ ko war a yaakaar bu kenn ku dul Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bu keneen kon teg leen mbir mi foofa. kon loolu laa ne woon dinaa leen ko baaxe ci nga xam ne yëngu-yëngu jamono yi maa ngi leen di dénk képp koo xam ne aju nga ci man bu la ci kenn dégg bu la ci kenn gis ndax man mii seen jëwriñ ne ay tegg rek ci lañ ma xam ne man mii seen jëwriñ ak taalibe rek ci lañ ma xam ne képp ku may bubboo nag roy ma ci ni may doxee ki nga xam ne mooy sa buntu nag lay tax nga mën a jaar ci buntu ba mooy lim la digal nii def ko lim la tere nii bàyyi ko lim la digal nii boo ko defatul bokkatoo lu mu la tere nii boo ko bàyyitul bokkatoo ndax damay wax de ñaar yi nga xam ne moo gën a metti ci àdduna ci kum dal ci njaboot li ngay njëkk xalaat mooy nag ana sëñ ana sëriñam nañ ko woo muy bi ci mooy ba ka ruuf gi tàggu na ko maanaam faatu na ana sëriñ bi sëñ bi kat diw sàngam nopp loolu ñëpp génn nañu seen responsabilité bi ci des diw sàngam jàpp nañ ko ci kasam bi nañ woo sëñ ñëpp génn seen responsabilité sëñ bee ci des di liggéey kon nag na ngeen bàyyi xel loolu bu baax xam ne kenn ku nekk ci yéen la koy dimbali ci loxol boppam lay nekk ci jomi boppam lay ne boo doon xëy di tëdd doo yëngu ci dara dana jafe nga tedd waaye ku góorgóorlu rek yàlla mën na laa dimbali nga tedd adduru wa nafa min arrahmani laysa min al bidaari wa sudaari loolu ko suñu baaw kon nag maa ngi leen di di sant bu baax di leen wax ne kàddu yi mënul woon ñàkk ma wax ko ak yéen su ma ko waxee ba noppi nag wàccoon naa ak yéen ku def xayrul ku defut xayrul waaye yaakaar naa da ngeen def yaakaar naa xam yaakaar naa da ngeen def kon nag sant nañ leen bu baax a baax dañ xam ne kii fi nekkal Serigne Touba tey jii mu Cheikh Mouhamadou Mountakha Serigne Touba mu mat sëkk la te loolu di wax xut bu samaan moom la kon nag jamonoom dafay nekk jamono joo xam ne ku jamonante moom saas la waaye ku jamonante moom na nga tënk sa bopp la ngay tënkee sa bopp moo lan mooy ay teggin waaw ci lépp nag de manière générale kon nag maa ngi maa ngi maa ngi santaan ñëpp xam naa ne waxtaan waaye jóge te xam naa ndaw ko day moom fi ni ñi ma utune ngeen xew yooyu comme nag maa ngi leen daal di yabal foofu waxtaan bi sant nag mbokk mbokk yëpp nag ñu fi teew ñëpp nag ndax sama njabootu bopp ngi fi samay taalibe ngi fi samay xarit ak samay mbokk bopp solo mu juuf ak mbokk yëpp teew bi soxna si ak njaboot yëpp ñu ngi fi kon nag maa ngi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb Cheikh Mouhamadou Fadal na aju yëpp faju rek na aju yëpp faju sëñ Fallou bi na ngeen xam ne lu tas yaakaar de ni ngeen bàyyi seen i yitte bàyyi seenu liggéey jël jamal bu seenu seenu ñàkk indi ko defe ko def ko ci biir sëñ Fallu bi billaay da nga xam ne loolu du nax saay dañu xam ne sëñ Fallu lañ gën a joxe foofu kon naa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amiin amiin yéen bakk sëñ Fallu amiin